asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar seen mbokk Makhtar Sarr di ñëw rekk ci lu gàtt di def benn jàngat ci woote bi nga xam ne tey euh, docteur Mouhammad Ahmad Lo ak waa Looyeen woote woon nañ ko tey fële ca Grand Théâtre euh, di woote teggi tuuma ak leeral ak woote ci dal ak jàmm ñu bëggoon cee indi nag benn jàngat waaye li jiitu ci jàngat bi sant yàlla lay doon bi nga xamee ne dem na ba aw nit ñu doon woote di wax ni ñoom dong nga nekk ci alquran ak sunna lu dul lu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam defuloon duñ ko def tey nit ñooñu wane nañu xar kanamu du ngeen ñu dàq woote bis bu nu neex ci fu nu neexee ca nam nu neexee li tax ma wax loolu mooy ñaareel xëx xëxëtloo gi am ba kàddu di jóg dënn di yëkkatiku léeg-léeg li ko indi dafa am suñuy mbokki jullit yu nu bokkal réew mi ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu mag ñi ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu mag ñi te nangu ko tënku ci ngirum Malik ci aqidatul yi ci tasawuf bu imaamu di dafa am léeg-léeg aw nit ñuy woote woone ñoom ñooy ahlu sunna wal jamaa comme ni mu jibee tey ci discours li ma dégg ko ci ahlu sunna wal jamaa nga xam ne ñoo koy revendiqué ne ñoom ñooñu tout le temps benn baat la ñuy faral di wax mooy nun ñooy waa sunna waa tasawuf ñooy ñooñ bida ndax waa tasawuf dañuy woote bis yoo xam ne nii yenent bi mosu koo woote saxaaba yi mosuñ koo woote bis yooyu dugal nañ ci lu mel ni màggal dugal ci lu mel ne gàmmu ak yenn bis yu nuy wooteel sunuy sëriñ ku mel ni man nag yàgg naa ñëw taxaw di jël position wu du lay ci diine yenent bi defu ko sunu borom tabaraka wa lim nu wax mooy lu leen yenent bi indil fa xuduuhu wa ma nahaakum lu mu leen indil jël leen mais lu mu leen tere bàyyi leen mosula wax ne lu mu bàyyi bàyyi leen ko waaye sunnatu tark dugal nañ ko ci biir pas-pas ci seen pas-pas ñoom mooy nangam yenent bi masu ko a def bu ñu demee nag ba gis aw nit bés bu leen neex ñu woote dajaloo ngir di setal seen bopp woote boobu ci turu lan lañ ko def ndax ci turu aada la wala ci turu diine la question la bu fekkee ne ci turu aada la nañ ñu leeralal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kañ la daan woote bisu aada bu fekkee ci turu diine la dañu wax yonent bi sallallahu alayhi wa wala saxaabatul kiraam sax laay jël kañ leen daan woote bis boo xam ni dañuy dajale góor ñi ak jigéen ñi maanaam ñi woote seeni soxna dañuy génn seeni doom seeni soppe yu jigéen yu jigéen ñoom ñëpp ñu dajaloo ci benn palaas ngir ne dañuy waxtaane nit ki jaar-jaaram wala dañuy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom saxaaba yi jaar-jaaram di waxtaanee ay maamam fa mu bokk ak yu ni mel loolu wax dëgg ku mel ni man soxla na ko lool tey ñu indil nu ko ci biir njàngaleem saxaaba yi fan lañu daan wootee bis ngir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaanee jaar-jaaram di waxtaanee ay maamam comme ni ma ko déggee tey ci daje bi maamu cheikhana docteur ak i woy juram fi ñu jaar ak yiñ leen jox ak ba dégg naa sax ay toogukaay yoo xam ne nii walla toogu yoo xam ne naa docteur léegi moo ko doon yor ko <laughs> yooyu yëpp daal soxla nañ ci ay gindi du waxtaan nag pour dënn jóg ay question la rek luy njëriñu jàngat bi tamit mooy bu may daaneel ñu xam ni ku nekk war na respecteel moroomam la mu gëm te bañ di agressé moromam tout le temps maa nekk ci dégg yow newoo ci dégg ndax nag mbir yi randul matoo kese laa fi gis randul matoo lépp luñ daan bañal sunu sëriñ si ñu ngi koy nangul kon Cheikhana docteur sëriñ Touba dafa woote bis ne màggal ne nañ ko santale yàlla moom bisu sant yàlla la woote Cheikh Alxaaji Malick maam Abdoulaye Niass mag ñu fi woon woote bis ne dañuy màggal juddug yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa tey ñu gis njabootu Cheikhana docteur woote bi bis woote luñ ko yàlla nee nañ pour sant ko wala wooteel ko yenent bi ngir màggal ko waaye dañoo ñëw pour teggi ay tuuma yuñ teg ci Cheikhana docteur Cheikhana docteur jël kàddu di setal boppam di wane ne kat nit ñi ñoo ko jaxaseeku nit ci mbindam yu mu bindoon ak yu ni mel waaw kañ la wooteb sëriñ tuuba doon bida wooteb cheikh alhaaji malik doon bida te ku nekk ci ñoom kii wooteel yàlla ngir ñu sant ko kii wooteel yenent bi sal allah wasallam ngir ñu màggal ko yooyu yëpp di bida tey bii moom fan lay dugg wooteb tey bi fan lay dugg dañuy nangu ne yële bidaa la bii ñu boole ko ci bidaa yi mooy la ma waxoon ca wal fajiri suñ diineeg jamono mooy ñun ñëpp di dund ci bidaa wala ñu nangu ne diine de buntu woote xatalu ko daf ko ubbi mu ne ŋàpp li muy tere daal mooy ñu woote def lu neexul yàlla waaye fekk ñi ngi woote di def lu neex yàlla diine amu ca lu muy bu ñu nangewu loolu gannaaw bi ñu jógee ci grand théâtre tey bi danañ war a respecteel ëllëg Maxtaar Sarr ni dama bëgg a woote bis wooteel ko maam seexul Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh ne damay fàttali ko Cheikh El Hadj Abdoul Aziz waxtaanee ay mayam waxtaanee liggéeyam bis boobu ñu nangul ma ko ci turu diine bañ ma ko bañ maa taxe nitu bida ëllëg ñu may sëriñ kër Mbuub ni dafa bëgg a woote bisu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke waxtaanee jaar-jaaram waxtaanee liggéeyam ñu nangul ko ko bañ ko taxe nitu bi daal pour jàmm am boo gisee fan yi yëpp mu benn publication ci bis bi waxuma ci dara dama doon ñaan yàlla di ngéeju bisu tey bi am ndax yàlla dana am lu bari lu mu leeral dana am tamit lu bari lu mu teggi ci ay tuuma li muy leeral bokk na ci mooy ñi doon wax ne yàllaa ko bi yenentam képp ñun amuñu keneen ak affaire yàllaa ko bi yenentam ñooñu tey leer la ne yàllaa ko bi yenentam am na kuñ koy wutee ci moom mooy Cheikhana docteur comme ni nga xamee ne nun yàllaa ko bi yenentam fii may waxee ak maa ngi fii ci Fès ci dëkku Cheikhana Ahmed yi ci moom la sama yoon jaar pour di ko royee yenent bi sallallahu sëlëm wa sallam ci tarixam ma def ko sama naafila di ci wut yokk ci wàllu yàlla léegi naka nga may bañalee man ma mën a royee yenent bi na Cheikh di yow yow mi ma bañal loolu tey nga wax ma ne am nga Cheikh man nanguloo ma Cheikhana Ahmada Tidiane waaye yow dinañ la nangul force Cheikhana docteur Ahmad Lo loolu noonu le naka la ko xel mën a nangoo gis naa ci daje bi ko tudd Umar Sall Umar Sall Omar Sall mi nga xam ne nee naa feek tuubalul Seexana Ahmada Tijaani ñëpp dégg ko lu mu julli lu mu woor lu mu dem màkk lu mu daawa dañ koy verse ci compte Cheikh Ahmada Tijaani lan moo tax taalibe Ahmed Lo bii ma gis mu toog ci ginnaawam tey muy Omar Sall moo toog ñëpp di ko dégg ñu enregistré ko audio yi tasaaroo mu ne Cheikh Ahmada Tijaani chrétien la woon Cheikh Ahmada Tijaani mu ne chrétien la woon te loolu noonu le boobu ba léegi indiwu ci firnde boobu ba léegi tuubu ko boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom sëriñ bii nga xam ne mooy Cheikhna docteur Ahmad loo kenn ci ñoom taxawul def radd ne lii nga xam ne moom la Omar Sall wax du dëgg waaw léegi naka la Omar Sall mën a ameeb sëriñ gëmloo ñu ci ay xutbaam yàgg naa déglu waxtaanam tontu naa ko lu baree bari yàgg naa déglu waxtaanam mu gëmloo ñu ne yàlla toppaloo toppaloowunu bàyyu kenn wala maamu kenn di dem ci seeni tool di leen wuyu bu ñu wootee loolu noonu le mbuumu njaam la goo xam ne dañ ko war a dog yàllaa ko yonentam képp lañ war a topp topp même Omar Sall moom ma déggoon mu ne ma ñoo topp kenn ku dub yàllaa ko yonentam di wuyu seen wooteeg dem seeni tool ki ñu doon bañal ñu dem toolu Serigne Saliou Mbacke ca Xelkom di ñu bañal ñu dem toolu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ca Jaksaaw kooku tay mo ñew ci tolu Ahmad Lo ci Grand Théâtre mu wote mu wuy ci ko ta mo ne won wuy ji yalla ko yenentem wala ko lol dong lañ wara def alquran ak sunna kep tax sante yalla gi moy ndege dañu bañoon sëriñ ño am cheikh yi c'est important ña bañoon sëriñ mo ño am cheikh lol dana jur ben dal ak equilibre ak ndaw ñi nga xamni ni xamuñu li xew dañuy tañex rek bu ñu déggee alxuraan ak sunna yàlla yàlla yenant bi lañu ñu topploo point pour ñoom ñun ñi nga xam ne dañoo gëm mag ñi di topp seeni njàngale bu ñu wootee ñu wuy ji leen ñun loolu ñu gëm noonu ay caaxaan la dañ ko war a bàyyi léegi ki la gëm loolu yow ba nga gëm ko ne la da nga war a bàyyi tuubaa nga ngay dem ndax bu njëkk dañ ñu daan taksee sax di indi ay xadiisu laata suddu rixaal yenent bi nee na kenn waru la euh, war oto wala nga yëg gëlem di dem lu ci ñett jakk yi manam lu lañ daan layaloo ci dem màggal ak gàmmu xaraamal déplacé wu uniquement ngir dem ci bërëb boo xam pour dem fa ñaan wala jaamu yàlla ñu araamal ko léegi tey ci biir daje bi dégg naa mbokk mu baax <laughs> maa ngi koy nuyu borom xam-xam la tur bi laay fàtteeti moo yoroon defe naa micro central bi bi mu nuyu ñu teew cheikh ismail cheikh ismail ku ñu respecté ba respecté la borom xam-xam la te li tax ñu respecté ko du dara lu dul gëm na lim gëm mosuma ko dégg mu offensé kenn ñu mel noonu bu fekkoon ñoom dong ñoom ñoo nekk ci biir mbir yi mën nañ noppalu ci yenn tontuwante yi jàll ci yeneen mais yi ñuul ci soob mi moo tax dégg naa ko bi mu wax moom Cheikh Ismaïl wane ne am nañu jugee ko ba Mali ba Gàmbi ngir yàlla ak woote sey xanaa docteur <laughs> li nga xamee ne màggal am na ñuy jógee ko Mali Gambie fépp ci Afrique yemuñ rek sax jógee Mali Gambie waaye dañuy jógee États-Unis jógee koo Europe ngir wooteeb Serigne Touba bu gàmmu jotee it fu ne la waaye bàyyee ko ci àdduna bi ngir wooteeb Alaaji Malick waa démb loolu dafa bonoon tey mu baax alhamdulilah bi mu baaxee tey kon ëllëg dootul bonati njëriñ li mooy siivu bi li ñëw ci kanam jàmm ji nga xam ne tey Cheikhana docteur nee na moom la woote defe naa wooteeb tey bi. warna na tax jàmm am ci kanam ba ku mel ni Omar Sall dootuñ ko déggati gàmmu jot mu taxaw ñu naan yenent bi mosu koo def saxaaba yi mosuñ ko def sëriñam bi tamit dootuñ ko déggati gàmmu jot mu naan ñu yenent bi mosu koo def saxaaba yi mosuñ ko def bu ñu kenn fontoo ci yooyu noonu yooyu moom wax dëgg war nañ cee dimbale nit ñi te ñu jàll ci yeneen beneen bi nga xam ne ci lay mooy bi ma déggloo discours bi dégglu naa discoursu docteur ba mu jeex waaye dafa am euh, menn mbir moo xam ne feek mi ngi wéy di ko wax yi muy woote nii di jàmm du am mooy téere bi aw nit ñoo jug jukki ci lu leen neex pour diaboliser kook ñeneen ñi loolu maa ngi wax ci sama kàddu ci kaw ne c'est pas du dëkk téere bi amul kenn ku ci génne dara ngir jaxase laa kenn mais téere bi yaa ci def ay tooñ ak i sos ak i saaga xanaa tudd naa ay mbir tooñ sos saaga euh, léegi sama téléphone ñu baal ma xam nga dégg naa mu ne ñu bari mënuñoo liir sax li nekk ci téere bi li ci nekk xamuñu ko dafa am ñuy ñëw rek indi leen ay wax ci biir téere bi ngay fekk ci xaaj bu njëkk ba xëtum juróom fukk ak juróom ñaar muy résumé ne bal kullu man ittalaca bi imcaanin wa insaafin calaa masaadirihim al asaasiya topp ko ba ji jeexal ne liy liggéeyu gaay ñi mooy li xidmati ulaika al awliyaai aw li cibadatihim ala al asax aw li cibadatihim ala al asax mu ne képp ku yër téere tasawuf yi nga xóotal màmmal sa gis da nga gis ne fondu fondement wu cëslaayu téré wa tasawuf la ca nek soko topé moy euh raf'ul waliyi ila maqamil uluhiyya yekati waliyu yekati waliyu tek ko palaasu yàlla mune moy nek ci téré wa tasawuf seen pas-pas yekati waliyu tek ko palaasu yàlla wa tasxiiri nasi ak liggéeyal ak tagat nit ñi li xidmati ulaika al awliya ngir ñuy liggéeyal waliyu yooyu tàggat nit ñi ngir ñuy liggéeyal waliyu yooyu aw li ibadatihim wala jaamu leen alal asaxi ca la gën a wér wala sax ñuy jaamu waliyu yi waaw lii bu fekkee nekkul génne nit ñi ci lislaam mooy lan léegi ñii seen pas-pas dañuy yëkkati waliyu yi teg leen palaasu yàlla wala ñuy tàggat aw nit ngir ñu leen di liggéeyal wala sax ñu leen di jaamu mais mbokk yi ku jaamu nit yéefar nga génn nga ci lislaam léegi ki bind lii ci téeréem tey moom laa déglu grand théâtre mu ne dañuy wax ne dafa génne boroom xam-xamu lislaam yi ci diini waaw léegi bu fekkee nga ne képp ku yër téere ànd ak maandute seen téere yi seen cosaanu téere yi la fay fekk lenn dong la mooy yëkkati wali yu teg ko palaasu yàlla tàggat nit ñi pour ñu leen di liggéeyal ak jaamu wala jaamu sëriñ soosu noonu jaamu leen lii nii ci yi nga xam ne nii jukki nañ ko ci sa téere mu nekk ci nga bind ko kenn sexalu la lem yow yaa ko bind beneen bi nga ñëw ci tarixa tijaan bu weesoo génne nit ñi ci lislaam tarixa tijaan moom saaga yu ko neex la ko saaga moo tax nee naa jàmm ji mooy euh, xam nga man ko gëm ubbeeku laa ci benn côté aw ma problème bu ñu wootee gis ngeen bataay yi ànd sàmm jikko yi ñu woote ñun ñëpp euh, moom mu teew ñeneen ak ñeneen teew ndax damay wax ne tout le temps war nañu comprendre combat menn mbir buñ ci nekkee war nañ ko comprendre ba am na loo xam ne ku ne dañuy dajaloo ñu xeex benn mbir buñ paree ku ne dellu këram loolu dama ko gëm mën nañoo dajaloo waxtaan ñu bañ a dugg ci détail yu taqdiisul asxaas mais taqdiisul asxaas mënuñ koo ubbi mukk jàmm di am juboo di am ndax ay tooñ ak i sos ak i saaga moo nekk ci biir fees ci dell te lii dama bañoon wax ci ñu ne na ko génne lii benn la bu may génne am na sama benn mbokk nit ku baax ku maandu dégg naa tey rek ñu lim ko ci ñi fa teewoon jarul may tudd turam euh, bis mos nañuy wax mu ne ma est-ce que du baax en tant que moom gëstukat su ma waxee ne taqdiisul asxaas dafa am lu ci ne moom ma dimbale ko indil ko ci biir téere bi loo xam ne nii lu ci nekk lu jaaduwul la ma dem indil ko téere bi bi borom téere bi jeexal fi muy résumé résumé ma indil ko paas boobu noonu leen liiral ko ko mu noppi waxatul dara mais boo toppee téere bi fi ma nekk nii rek muy fees tey ñun ñii dañuy dem di wasifa ji fii ci zawiya bi wax na ci biir téere bi ci xaaj bu njëkk bi xëtum ñaat téeméer ak juróom-ñeent euh, di weddi bu ñuy wasifa yonent bi day teew ak xulafaawul arba mu ne mu dem ba ci biir ne fa in kaana maqsuduhum bil ajsadi fala yartabu ahadun fi annahu buhtan wala yusaddiquhu aaqilun mu ne bu fekkee dañuy wax ne yenent beeg saxaaba yi ñoom tiijaan yi dañuy teew ci seen malaan wadifa mu ne loolu amul benn sikk sàkk ne ay fen la ay sos la te nee na kenn ku am xel du ko dëggal manam Cheikh Al Hadj Malick mi deugal lolou Cheikh Al Hadj Omarul Fouti mam Abdoulaye Niass Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass tidiane yi ci aduna bi yep gëm lolou pass pass bobu non le amuñu xel ta dañuy fen li mom moko bind ken sa xelu ko lem mu dem ba ci bir ne bu fekkee seen ruu yi sell yi nag ñooy fir dawsi genne fa ñëw tew ci sen jotay ngir tew xolal amama qawmin jahilin yushrikuuna billahi ñuy teew ci kanamu nit ñoo xam ne ñu réer lañu ñuy bokkaale ak yàlla ñuy bokkaale ak yàlla naka la euh, wayastamiduuna min xayrihi ñuy tëb ci ku dul yàlla mu ne boobaa laqad jitum shay'an idda indi ngeen ñaawteef bu rëy rëy rëy <laughs> waa léegi ki nga xam ne nee na tey ci grand théâtre amul kenn kum génnee ci lislaam moo taxe tiijaan yi ay bokkaalekatu yàlla taxe leen ay jaahil ñu réer maanaam ñi toog noonu naka la yonent bi mën a teewee ci seen biir ñoo xam ne nii ñu réer lañu ba noppi di bokkaale ak yàlla di tëbb ci kudul yàlla ñooñu naka la yonent bi mën a teewee ci seen biir lii nekkul loo wax ci say minbar mais da ko bind mbind maa ngi fi dañul te nii laa ko mënoon a toppee ba mu bari lool ci ay mbir yoo xam ne day tudd fen di tuddu bokale di tuddu reer di tuddu aw nit ñom dem na ba di leen di tëkkaleeg ñoo xam ne nii xel nak sax a leen ëpp xel nee na xelum nak sax texte bi boko topé ba ci kanam lu jégué lool mi ngi wax lu mel noonu mune ñu mëna yegg ci niveau bo ni nak sax yalla musal nako mu mëna yegg ci niveau bobu li li lii Cheikhana docteur dang ko bind te li la ku yalla nako yalla Cheikh Ahmed Tidiane Gaye amoon ak yow problème ba bind téere tontu la ca tey li ngay wax ne ñooy jaxasekat yi ba muy dund waxoo ko woon jaxasewulaa kenn dafa bind téere tontu la waxaatoo ca bindaatoo tontu ko mu woo la débat fa jiri ñëwoo ca débat ba ba mu génn àdduna ñemeetoo wax ci téere bi gannaaw tey kay xanaa bi nga xamee ne Seydi Lamine ñas yàlla na ko yàlla yërëm génn àdduna ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmad Tidiane Gaye génn na ci nga mën a ñëw ne dañ la doon jaxaseeku nit ndax lii mooy jaxaseeku nit te nag maa ngi eh, damay jàngat nii rek am lu may jukki taalibeem yi nga xam ne waxuma mbocoroo ci ci suuf di bëgg tur léeg-léeg jug naan ñu ngi may tontu mais taalibeem bu ma ci tontu ku ma xam ku ko jege danaa dem dugg ji ci taq taqdiisul asxaas def ci aaxiru zaman mhm. pour wan leen ne. problème bi nga xam ne moom la am ak waa tasawuf li ci gën a rëy mooy taqdiisul asxaas fii fikri suuf yi te loolu noonu le lañ lam lam ca bind moom moo gën a xam lu tax mu bind téere bi toog lu yàgg génnewu ko xam naa ci lu bari ndax waxtaan naa ceeg ñu bari ci jamono yooyu lan moo tax téere bi génn toon ak lu tax mu génnee ko ak lan la wax ne moo tax mu génnee téere bi te xamoon na ne moom coow lii nii dana nekk ci téere bi ba tey xamoon na ko bi muy génnee téere téere bii nii moom laay déglu ci YouTube aw nit di ci def silsila ne dañuy waxtaanee li ci taqdisul asxaas aw nit ñoo xam ne nii dañuy tudd na cheikhana docteur Ahmad Lo hafidahullah bu ñu tuddee Serigne Touba sàllalu ko alaaj Malick sàllalu ko Cheikh Tidiane ñu wax leen lu leen neex moom bind na téere bàyyi fi waxul kenn téere bi bu ko kenn nekkati di jàngale wala di ko jàng ci seen YouTube day wax ne kay kiite euh, leen ci groupe yi nga xam ne nii dàgg sante faam mais mosuma koo dégg mu ne téere bi bu leen ko jàngaleeti maanaam téere bi moom ba léegi validé na ko nangu ne téere bi def ci indi critique gis naa benn scène buñ ko invité mu wax lu mel noonu ne téere bi ay critique moo ci nekk te moom critique du moo ko njëkkee ne Cheikh Al Hadj Mali def na critique ci Kifaayatu Raaxibiin ci tasawuf Serigne Touba def na critique ci fa euh, ci Masaalikul Jinaan liñ ci dugal te bokk ci ñooñu dañ doon wax liñ ci dugal te bokk ci waaye yow dang ne tasawuf bokkul ci diine tasawuf nga wax ne bokkul ci diine di taxi aw nit ñu nekk ci tasawuf ay mushrikin ay katu yàlla ahmad loo bu ñu firee waxam ji mooy tiijaan yëpp safara lañ jëm loolu mooy katu kuy bokkaale yàlla moom safara nga jëm léegi ñi nga xam ne ñoo toog di fa ay katu yàlla waa man naka laa mën a nangoo man nga taxe ma ma nekk benn katu yàlla ba noppi nga gëmloo ma ne ma waxuma la dara lu la offensé offensé wu ma la say taalibe ne offensé wu ma la te man maa ngi yor sama kurus di wadifa am pas-pas boobu noonu léegi nga gëm loo ma ne pas-pas boobu noonu yow musrik nga kuy bokkaale yàlla nga ku réer nga léegi ba noppi nga ne waxuma la dara loolu moom du dara yaa garaawal wax ji problème bi lii kese la moo tax ma ne mën nañu ub téere bi ñu jàmmoo ñu ub téere bi jàmmoo te téere bi li ko doon ub ma saa ko wax benn bi sama benn waxtaan ne na taal taq diis rek jàmmaam bu taalee taq diis rek jàmmaam lu dul loolu nag képp koo xam ne nii yaa ngi jóg di attaquer mag ñi fii ci Sénégal xoolal amul kenn koo dégg muy attaqué mag ñi di attaqué tasawuf te ñemee attaqué Ahmad Lo seen YouTube yi maa ngi abonné ci seen seen yëpp yëpp nag laa abonné di nga dégg ñu critiqué sëriñ diw sëriñ diw waaye doo leen mos a dégg ñu critiqué docteur Ahmad Lo waaw léegi kon docteur Ahmad Lo mooy seen sëriñ seen boobu duñ nangu mu ko dugal ci vidéo ku koy tontu duñ ko nangu kuy leeral lu jëm ci taq taqdis tooñ duñ ko nangu tout le temps ñi ngi dugal loo xam ne njàngaleem Ahmad Lo la wala kuy défendre Ahmad Lo wala kuy attaqué mag ñi te moom yëg na loolu xam na ko mi ngi liiri audio ci ci téléphone comme ni mu ko waxee tey kon video yi ñuy def yëpp di attaqué mag ñi mi ngi koy gis ba tax na vidéo bi mi ngi mi ngi gudd te bëgguñu woon mu gudd lool mais ay jàngat la woon rek pour wane ne bu fekkee ne daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la Cheikh Al Hadj Malick wooteel muy gàmm Serigne Touba woote. magal ngir ñu sant yalla docteur Ahmad Lo wote na bis ngir ñu ngir ñu setal ko ak wax ay jaloorem yi mu def waye wax deug fa yalla nañ continuer nak ku ne respectel sa morom bisam nak waa ku ne na respectel moromam bisam pour am ta ndaw ñi nga xamne ni ño nek ci ginnaw mbir yi di attaquer tout temps pas passu nit ñi di len taxé ay nitu bidaa te boo jàngatee tey ci biir waxam loolu dikk na ci ñun nitu ahlu sunna nun ahlu sunna <laughs> nun ahlu sunna waaw léegi xale bi bu demee sa discours boobu mu koy mu koy jàngat ñun ahlu sunna waaw léegi buñ ko laajee ñeneen ñi ñum doon mu ne mooy ahlu bida te loolu ngay dégg ci xutba yi ku mel ne Omar Sall di ko wax ahlul euh, bida ahlu ahwa terme yooyu muy utiliser ba tax na kon euh, nañu moytandiku kalimatu xaqin urida bihal baatil kàddu goo xam ne ci kaw dëgg la mais ci suuf ay neen moo la am na yoo xam discours yi mën na rafet ci ñi jàngul ubbi ñu téere xool li ci ne mais nag sama genre gi nga xam ne nii dëñ nañ ci ak réer taxdiisul asxaas kenn firi luñu lu ci nekk mais dañ wax ñu dem gis gisal suñu bopp liir bu nangu woon ne téere bi nit mën na juum njuumte la ba may bind njuumte laa bindee woon nit nag bind kat du mucc ci njuumte am na loo xam ne nii ku bind ku nekk jaar nga ci nangama discours yooyu lañuy soxla ka dafa am ñu ñëw di ci cuqati loo xam ne nii dañ koy jaxaseeg euh, àdduna bi loolu amul Sénégal ku nekk mu ngi fi gëm lu nekk ñu respecté la la nga gëm réew moo xam ne xajoo nañ ñu gëmul suñu yënant war nañ mën a xajoo ku gëmul suñu sëriñ kon du problème mu gëmul suñu sëriñ ak daf ko weddi kese la mais problème bi mooy li ngeen nekk du dëgg liñ nekk dong ngay dëgg fekk bàyyiwu leen li ngeen nekk du ngeen di jullit li ñu nekk dong ngay nekk pour nekk jullit ku ci dee nga ci ngay dem àjjana ku dee ci li ngeen nekk safara nga jëm problème bi foofu kese la nekk man nag duma nangu yow nga ne boo dee àjjana nga jëm man bu ma dee safara laa jëm ba noppi ma lay ci loolu nga wéy di ko véhiculer ba tax na ku nekk utal sa daara utal sa juma wool sa nit ubbil sa télé ubbil sa rajo réew mi réewum liberté la ku mu neex man nga woote ca la la neex waaye nag di taxe nit ñi ay kéefër bindub téere téere bi nga taxe ci aw nit nit ñi dañuy bokkaale yàlla ñu réer lañu nag yi sax leen ëpp xel ba noppi tey nga toog ñu lay déglu ngay bëgg a gëmloo nit ñi ka loolu noonu la dañ koy jukki ci téereem ngir jaxase kook nit ñi waaye amul fenn fu mu bindee di génnee nit ñi ci lislaam loolu laa du dégg tey du dëgg démb ba tax na ma daaneel sama kàddu di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne ñu daan wax ne nangam yenent bi def ko won ak sahaba yi ñi ngi leen di deglu tay ñu wax ñu li ñu def fan la ko yenent bi nyep won ak sahaba di waat nak di wo sama mbokk jullit ñep ñu way di am tolérance xamne mbir yi ni mako waxé won loolu la gëm ba fi mu toll ni moy li ñu wuté nañ ci waxtaan li ñu wuté nañ ci waxtaan li nga xamne ni mënuñ wala li ñu dëppoo nañ ci ànd li ñu nañ ci ànd ku nekk layalee li tax ngay àndal sa moroom mooy jullit la ne man ñoo bokk xibla bokk téere bokk yenent moo tax may ànd ak moom nga man ko layalee loolu yi nga xam ne dañ cee wuute di ay masala ci wàllu pas-pas ak fiq ak lépp ñu bokk ci waxtaan yi ñu mënta déggoo nag ñu bàyyi ba ëllëg yomal xiyaam ñu regle ko ci kanamu yàlla loolu dong moom mooy wax ci ala kulli xaali waaye daal jàmm mi ngi am ci wattandiku tooñ ci la jàmm di amee déglu naa Cheikh Ibrahima Khalil Lo ci biir mu fàttali ko ci léeg-léeg yenn terme yooyu jël wooyee ko nit ba indi na aaya ci alquran wala tanaabadu bil bil alqaab wala tanaabadu bil alqaab teg tag si aw nit wooye leen aw tur maanaam boo jëlee wax jooju ci waa tasawuf dañuy tuddee gars yi seen pas-pas wahabiya muy ñaawlu loolu noonu ne alxuraan daf ko dénoncé léegi ëlbati waatal wax ji ñi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp ahlu sunna waa tasawuf ñu wooye leen ahlu bida même aaya bi la ñuy utiliser waat rek wala tanabadu bil alqaab ndax dara gënu la ñaaw xam nga ki nga xam ne wooyee nga ko wahabiya sax moom da ngay jàpp ne ba tey jullit la waaye ki nga xam ne yaa ngi ko tuddee ahlu bida ahlu bida wa kullu bidaatin dalaala ngay jàngale wa kullu dalaalatin fi naar ku nekk ci bidaa moom dee ci safara la jëm waaw léegi loolu noonu lee wala tanabadu bil alqaab fan lay dugg ba tax na kon nañu respecté wante nañ ñun ñëpp xamante nañu Sénégal lañu dëkk xamante na ñu mbir yi li nga xam ne ni moom moo ci nekk lu ci bëri xam nanu ko lépp loo xam ne Makhtar saa doon na ko defal sëriñam nga bañal ko ko tey yaa ngi ko nangul nit di ko ko def suñu sëriñ si dañuy woote ñu wuyu ji leen làmb suñu poos jox leen xaddiya seen bis ñu organiser leen ko ba mu jekk tey loolu doo nga xew woote na bis ñu déplacé fu ne wuyu si ko télé yi direct yi ñu def dañuy fay xaalis boobu noonu la fan la jógee bàyyeekoo ci poosam moom ñan ñoo ko dajaleel xaalis boobu noonu la day wane ne kon wala loolu dana firndeel ne ñun suñ poos yi ñoon làmm di jox suñuy sëriñ kon ñoom itamit làmm nañ poos ngir seen cheikh noonu nga koy toppee ba mu baree baree baree bari kon moo tax ma ne xamante nanu nañu respecté wanti loolu doo nga ci nekk nañu respecté wante nañu respecté wante loolu rek a ci nekk mënoo dëkk nag di attaqué pas-pasu nit ñi ci bind aw nit jël lool noonu la di ko véhiculer di ko jàllale koo ci déglu mu def émission balaa jeex blessé la ci sa pas ku ci xutba belese la ci sa pas ba noppi aw ndaw jël loolu noonu la ñoom ci beneen formule tuddee ko euh, dund sunna xeex bidaa di attaqué nit ñi ba noppi nga ëlbatikuwaat bëgg woo nit ñi ci dal bëgg woo nit ñi ci jàmm bëgg woo nit ñi ci wane ne yow amul kenn koo tooñ loolu noonu la du jàll fitna li ko fiy jëlee mooy bàyyi tooñ mais fekk tooñ a ngi am fitna du am wala jàmm du am fekk tooñ ngi am jàmm du lenn dong mooy am mooy bàyyi tooñ pour jàmm mën a am kon loolu lañ doon jàngat mm-hmm. li ci des nag incha allah danañ koo topp bu ñu ñibbisee Sénégal aywa taqdisul asxaas bu fekkee ne téere bi aayul gis naa bi mu jeexalee mbokk mi résumé ne téere bi xam a ci nekk wax ci li mu ci wax man ma ne téere bi ay sos a ci nekk ay nar a ci nekk ay tooña ci nekk moo ci fees dell sos nar tooñ moo fees dell ci téere bi ku ko weddi nag ne loolu nekkul ci téere bi aywa bismillah ñu dem ci ñu aaxiru zaman ci ba ñu debaa ci ba ñu debaa ci ci plateau télévisé ba tey pare naa ci incha allah ngir loolu kon taqdisul asxaas téere bu bon la boo xam ne nii buy tooñ la dañ koy jël ñu jël ko gas ba mu suul jàmm gas ko ba mu xóot ñu suul ko jàmm am waaye fekk téere bi ñu ngi koy jàmm jàngale ci sénégal juboo du am jàmm du am ci ala kulli xaali waaye jàmm ak juboo mi nga amee ci jël taqdisul asxaas taal ko jël taqdisul asxaas suul ko ñu seet nag leneen lu mu bindaat appare loo xam ne nii njëriñang ca jullit ñi man ko jëriñu waaye taqdis moom tooñ waa tasawuf sosal waa tasawuf waxal leen lu dul dëgg falsifier seeni wax wax ju nuy wax mu war a leeral fi mu jëm mu jël wax ja dagg ko lu mel ne nga ñëw ci alquran fekk ca fa waylun lil musallin alladina man salatihim saahuun nga ñëw jël fa waylun lil musallin yam ca def ay point def ay ay point dal di commentaire nag fa waylun lil musallin loolu moo nekk ci taqdisul asxaas fees ci del day ñëw ci jawahirul maani Cheikh Ahmad Tidiane wax dara mu jël wax ja tàmbali wax ji ba mu yàgg muy def ay point bu pare nag def commentaire am bu bon jëmale ko ci loolu على كل حال يوي نون لي دجور جامو في ماي دان لي بن بات دغنا كو مو نيه ما لول كي واخجي موي سيرن توبا القران اك سنه لا دون جانغالي كون الحمد لله رب العالمين وا تصوف كون نينتي القران اك سنه ناخ سيرن توبا كليف اك تصوف لا ci tariixa la nekk ci tasawuf la nekk ba génn àdduna kon moom tey bu ñëwee nangul ne sëriñ tuuba alxuraan ak sunna la nekkoon loolu dajj na téere bi dajj na seen pas-pas dajj na seen yu ñuy wax ndax ñoom dañoo gëm ne waa tasawuf nekkuñ ci alxuraan ak sunna buñ ko waxee buñ ko waxul dañ ko bind dañ ko bind kon bu amee benn kilifa ci waa tasawuf kum nangu ne kooku alal kitaabi wa sunna la doon jàngale ba génn àdduna ah kon alhamdulilahi rabbil alamin loolu daal neex na ma lool ci biir discours bi tey bi ma ko déggee ne waa tasawuf ñu ngi ci alxuraan ak sunna kon gannaaw loolu la war ngeen bàyyi murit bi mu nekk murit te tënk ko ci alxuraan ak sunna ngeen bàyyi tiijaan bi mu nekk tiijaan tënk ci alxur alxuraan ak sunna bàyyi xaadir bi nekk xaadir tënku ci alxuraan ak sunna ngeen bañ ne ko mënoo nekk ci alxuraan ak sunna te doon murit ak tiijaan faaw nga ñëw ci nun bokk ci suñu kër kuréel pour mën a dund alxuraan ak sunna su wax ji leeree ne Serigne Touba alal kitaabi wa sunna kon bàyyi leen taalibi Serigne Touba yi ngeen di def taalibi bàyyi leen taalibi Serigne Touba yi ngeen di def taalibi te bàyyi leen ñoom ngeen jàngal leen alxuraan ak sunna ñu wéy di dem màggaleeg di seeti seeni sëriñ si di leen jox hadiya te nekk di dund alxuraan ak sunna waaye daal balaa ngaa dund alxuraan ak sunna faaw nga bàyyi sama sëriñ sa sëriñ ñëw ma doon sa sëriñ nga may jox hadiya su ma wootee nga wuy si ma léegi daal ci ngay tënku ci alxuraan ak sunna ay waay sàmm sëriñ Cheikh dafa waxoon ni ñàkk fayda weesuwul nga nangu sa mbokk taalibi def la taalibi mu ne ñàkk fayda weesuwu ko te loolu dong la eh, man taalibi bi kaay ma def la taalibi du leneen du leneen bañ a doon taalibe tey nga xëy nangoo doon cheikh pour gars yi topp la loolu dong la du leneen ku ci nekk yaa ngi samp sa bopp ñu tuddee la cheikh may leen suyuux yi fi teew sëriñ si suyuux mooy sëriñ sëriñ si maanaam tey seen sëriñ si sëriñ si <laughs> sëriñ si ñoom dañ di ay doomu yenent wala ñuy ay sëtu yenent wala ñuy ay saxaab ba daal ay sëriñ lañ am mbooloo yu leen topp nga nangu ko yow ci sa kuréel waaye nag beneen kuréel bi moom da nga leen koy bañam aaday maam ya diine maam ya topp maam yàlla toppaloo ñu bàyyi kenn ak maamu kenn waaye daal tey moom dinañ topp bàyyi kenn force ak maamu kenn force ay waay sàmb ay waay sàmba atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afala taqiluun afala taqiluun kuy digle sangu day fekk nga jiitu ja aywa kon bàyyi leen ñoo sunu pas-pas ngeen respecteel nu ko ñu bàyyi leen ak seen pas-pas respecté leen ko jàmm na ñooy lu ko mooy woote jàmm téeméeri yoon te agression yi di wéy ci réseau sociaux yi ci pas-pasu nit ñi di wéy ci xutba yi ci pas-pasu nit ñi di wéy ci émission yi di pas-pasu nit ñi jàmm du masa am ala kulli du masa am ndax man du ma nangu nga tag sama nitu bi daa tag sama bokkaalikatu yàlla ma toog yow bàyyi la ci li nga nekk te waxuma la sa baaxu maam duma ko nangu dama lay wax sa baaxu maam wax la yow yaay kan ala kulli soo ma bàyyee attaqué sama pas-pas nag ma bàyyi la ñu jàll ci l'essentiel yi te l'essentiel yi mooy li ànd sàmm jikko yi woote nañu xeex yu bon yi fi dugg ngóor jigéen gi franc-maçon gi yi agressé sunu diine yooyu mooy l'essentiel fi mbir yi tollu tey ci àdduna bi loolu la ñëpp war a concentré te ñun ci loolu lañ nekk yu ci bari démb daan naa ko baril sax ci attaques yi ak ci radd yi mais dama koy mujj wàññi yu baree bari ndax l'essentiel yi ma ko priorité yi ma waaye nag du tee sama pas ba tey damay wéy di ko défendre de damay wéy di ko defendre gëm ne li ma nekk alal kitaabi wa sunna samay kilifa alal kitaabi wa sunna ma di ko défendre xam naa yow sunna si nga may woo fan la juddoo ak ñan ñoo ko ju ak ñan ñoo ju tey ngir rey sunna soosu nga xam ne ñoom ñoo ko wasi noonu ñooñu xam naa leen bu baax maktab laa yor boo xam ne parti bu rëy téere yooyu dong nga ci fees te sob naa ci nag sob naa ci gëstu naa ci lu baree bare ba tax na su ma gisoon ne pas-pas boobu mooy dëgg bàyyi naa li ma nekk bu yàgg fekki ko <laughs> kon nañu respecté wante loolu donc moom mooy wax ji mooy résumé lépp waaw mooy résumé lépp munu may woote sama bis nga def ko bisu bii daa di woote sa bis def ko bisu sunna munu ma am sëriñ nga ne ma waroo ko am yàllaa ko yonentam nga mën a topp war a topp ba noppi yow am sëriñ ne moom lañ war a topp te yow kenn du la ci wax dara yow daal lu baax mooy li nga baaxal loo baaxalu lu bon la soo amee sëriñ baax na bu ko keneen amee bon na boo wootee bis baax na bu ko keneen wootee bon na loolu noonu le dafa war a dàkk lu ko mooy rek yi euh, ngeen di woote ci jàmm mënula am ala kulli di woy nag di respecté képp ku gëm li mu gëm da ngay dund na respecteel ma li ma gëm respecteel ma samay kilifa maa ngi woy di la respecté te ñoo ñu xam naa ci ñu baree baree bari bari na ñoo xam ne ñu ngi woote woone dañuy dund alxuraan ak sunna nekk ay nit ñu sell nit ñu yaru nit ñu yiw ma respecté leen ko lool du ma mës a dégg ñu agressé kàddu wala ñu gaaruwaale ma respecté leen ko mais nag beneen côté bi nga xam ne nii moom laay tuddee wahabiye yi ci yenn attaques yi ci yenn gaaruwaale yi kàddu goo yëkkati aaye boo yëkkati mu xam fi mu jëm te léeg-léeg ki ngay tag sa nitu bidaa yow la Abdullah ibn Mas'ud ne wala Abdullah ibn Omar ne nitu bidaa nga yow yow moomu ndax ne ne nitu bidaa yi euh, dañoo jël aay yi nga xam ne moo wàccoon ci yéefar yi ñu koy jëmalee ci jullit ñi te loolu lu ci bari moom mooy feeñ ci seen discours aay yu bari yoo xam ne ni yéefar yi la ko yàlla jëmale woon ci ñoom aay yooyu lañ jël di ko jëmalee ci jullit ñi te loolu noonu le mooy màndarga nitu bi daay dëgg yooyu yëpp mi ngi fi ñu ñu noppi waxuñu ko laa kulli xaal kon bu ñu amee benn tolérance bi ci yenn côté am leen ko te yar ci seen njaboot gi mbojoroo ci ci suuf nga xam ne fu nu jógee di attaquer nit ñi ci seen i pas di attaquer tariixa nit ñi di ko def ay tariixa bida te yow nga nekk ci tariixa